yi di amaat mbégte bu baax a baax a baax saa su ne rek di jàkkaarloog yéen fii ci 4appuis TV mbokk yi ni ñu koy defee di dalal ay kilifa waaye tey ñu toogatee kilifa goo xamante yaakaar naa ni dootuñu am solo bi ne saa su ne bi ñu ko ci xaar ci ndimbal ak faj li nga xamante ni moo di aajo doomu aadama yi saa su ne rek ñu dalal ko di waxtaan ak moom seriñ Bara Niane doon ñaankatu yàlla ci lépp loo xamante ne rek askan bi dañu koy yittewoo ni ko noonu tey ñu seet si ko fas yéene waxtaan ak moom ci ne mi ngi ci dimbali askan xamante ne askan bi ñu ngi koy xaar euh, suba di làmb ju mag euh, diggante Balla Gaye 2 ak ki nga xamante ni moo di Tapha lool dinañ ci waxtaan ak euh, sëriñ bi bu baax a baax a baax dañu koy nuyu daal di koy bàyyi rek mu yokk bokk internet yi sëriñ bi ñu ngi lay ziar bu baax a baax a baax ñaan aouzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim laa xawla wala quwwata illa billahi halil asim man jaa bil hasanati fal asr am saliha alhamdulillahi kariman naan allasi akramna bil quran wasalaatu wasalaam ala saahibina saahibal xat aman xoanal hawa in huwa ilaa yun yoha ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen nuyoo nuyoo bu sel di nuyu bu lislaam di képp koo xam yaa ngi bàyyi xel foo ma di nekk ci àdduna bi lu mu sori sori sori ak lu mu jege jege di jiite ci nuyoo bi sëñ Muntaxa Basiru sëriñ Mbaye si Mansour sëñ Sidi Moxtar Lay fii ci Cambérène di nuyu mbooleem àdduna bi di néew képp ko xam ne ab julli nga di la wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu am solo yi nga xamante ne sëriñ bi nuyu ko askan wi ñuy bàyyi xel waaye tey ci doorte li nga xamante ni moo di waxtaan bi dama bëgg tey sëriñ bi ñu taxaw tuuti ci li nga xamante ni jamono ji nit ñi ñi ngi dox waaye bokk na ci lu ñuy sàgg nees seen dund suñu borom bi may ci loo xamante ni koo ci jëflanteel dina gis ay yokkute lu bëri ci boppam waaye lu ci mel ni mbirum kaaraange laa bëgg tey ñu dooree ci waxtaan bi waaw alhamdulilah kaaraange moom lu baax ci ab jullit ndax yenn chance nee na yéen jullit ñi dem la ngeen wut seen fàgganikukaay seen fàgganikukaay mm-hmm. waxul ngeen yor si pistolet di rey nit ñi waxul paaka di jëm nit ñi fàgganikukaay mm-hmm. kon nit dafa wut wut kaaraange boppam kaaraange nag du da nga def ngir seen mbokk mm-hmm. da nga koo def ngir jinne yi nekk ci mbedd yi boo génnee war koo def ngir rawaan yi nekk ci mbedd yi war koo def ngir accident ci oto war koo kër gi nga nekk di fanaan du question da nga koy def si diggante nit ak nit rek am na lu gën a bon loolu muy moo tax yor nañ secret yoo xam ne comme waradallahu lasina kafaru bi xaychihim lam yanaalu xayran wa kafallahu min xital wa kaana la xawiyan asisan am na lu ñu ciy liggéey ñu liggéey ko limu 92 mooy taxaw Mohammed boole ko wa jaaxal naa min bayni aydihim saddan wa min xalfihim saddan fa axsan fam laa yabsurun buñ ko liggéey ba pare ba jox ko ki bu ko jëfandikoo mën naa toog lu mu gàtt gàtt gàtt 50 ans rab jinne saytaan liggéey dara ko jàpp am na ci beneen sunguf boo xam ne mu tudd sunguf kolanting dañ koy liggéey bu ñu ko liggéey pare am na lu ñu koy booleel bu ñu ko boolee moom jox la ko nga sangoo ko da ngay toog ci cin wala nga toog ci bool boo ko sangoo lépp lu mu fekk cee du dindi loolu ci bis bi la jooni jooni la lépp lu mu fekk cee du koy dindi kaaraange rab jinne seytaane yaram wi diis lépp da ko dindi lu gën a sonal askan bi ci jamono gi muy wàllum rab rab euh, ci li muy sonal doomu aadama bëri na trop sëriñ waaw nax rab dafa am loo am la am na ñoo xam ñi gën di sëy bu dee góor la bu dee jigéen kasaalika ñii luy dugg mu yàqu lu ñu yaakaar tas kay duñ dugal du sotti ñii di am xat-xat ak seen jëkkër ñii di jékki-jékki di gaaw a mer ñii bu ñu tëddee guddi duñu mën a dañuy xalaat xalaat ba far nelaw ñii jékki-jékki buñ xëy suba di gaaw a crampe ñii seen seen yaram di dis buñ xëy suba loolu yëpp rab da koy def na wolof mooy wax rab arab di wax ruhaniya ndax kaana min al jinni fa fasaxa an am rabbi boo jàng subhaanallah si asra bi habdillahi la ma ci axsa di ko wax foofu moo tax rab da ngay bind actuellement nii bu dee kum dal mën nga bind xul ohiya ilayya annahu istamaa nafaru mina jinni fa xaalu inna sami'na qur'aan hajaban yahdi ila rusdi fa amanna bihi wala nushrika bi rabbina ahadan wa annahu kaana yaqulu sufyaan xalil juróom-ñaari yoon boo ko dellu gaynde ak dametu seetu ak leneen lu koy boole benn sunguf boo ko boole boo ko sango mu dañ ci ko sango dañ ci bis bi immédiatement moom amut suba ginnaaw suba te bokk na ci ay gàllankoor yu muy tee doomu aadama ba du mën a am soxna ba du a sëy rab na ci góor ñoo xam ne rab moo tax mun ñoom jabar am na jigéen ñoo xam ne fu ñu sëy ñëwaat te jigéen ñi ñoom du ci ñoom nit ñi nit ñi naan ñi bëgg ñëw sëy dañoo ree bëgg ñoo sëy fekk ndeysaan li nekk ci ñoom ñoom xam nañ ko mais nit ñi xamuñu ko moo tax kenn du ko wax kenn du ko nit kenn du ko jugé am na ñoo xam ne bëgg nañ jëkkër bëgg sëy mais mënuñoo sëy ndax li nekk ci ñoom ñoom ñoo ko xam seen biir am góor yoo xam ne mënuñoo ñoom jabar te ñàkk ñu dara li ko waree mooy rab ca yaakaar naa ne saafara bi mi ngi ci euh, kër gi te yaa ngi ciy liggéeyal ak ay doomu aadama ñu ci gis résultat ba ñu ngi ci euh, wax képp koo xamante ne loolu nekk na jafe-jafe na ñëw seet ci Serigne Bara Niane waaw alhamdulilah loolu moom kër gi boo ñëwee moom bu dee moo la andi mm-hmm. bu la neex doo ñëwaat waaw ñëwal benn yoon bu doo ñëwaat mbiru mm-hmm. rab ak li nga xam ne mooy ay ndoxam si teeg ay émorite mm-hmm. ay yooyu boo ñëwee benn bu neex doo ñëwaat sëriñ bi euh, di kontaan bu baax ci kàddu yi nga xamante ne ba tey rek ñu ngi ko seq ak yow waaye di fàttali yéen ñi bëgg jokkoo ak moom numéro téléphone yaa ngi noonu ci suufu écran bi leneen loo xamante ne euh, dama ciy taxaw ndax saa su ne rek dama naan solution bi fii la ne ndax euh, ni nga koy waxee jàmm mënta weesu lu dul góor nekk jàmm ci boppam ndax bari na sëy yoo xamante ne ñu ngi tas ci ñàkk jàmm ndax néew kattan gi nga xamante ne góor ñi ñu ngi koy dundee sëriñ bi euh, solution bi nekk fii nga xamante ne ku fi ñëw dina sant waaye dina indiwaat keneen koo xamante ne loolu nekk na jàngorom loolu boo ko dee gis ni muy def néew kattan gi moom bi ci gën moom mooy biogana bi biogana bi waaw am na ñoo koy defar mhm. ko jàng dippe akara gana mhm. am na gana mhm. akara am na fa am na tamali am na Paris fële ca Villejuif am na Sweden Stockholm am na Malmö am na Yatabor yi. Mhm. am na fa. Mhm. am na Tanzanie Darou Salaam am na fa bitig ba am na Kigali Rwanda am na Zanzibar am na fii Cameroun deux tamit. moom pot la da ngay jël diw gis résultat doo ko naan. doo ko boo koy amul dara. bio ga moo gën a siiw siiw na. Hmm. da jël rek ñu jox la nga nga gis gis ko. Hmm. doo naan doo def dara ndax dama ne sunguf kenn du ko naan dama ko yàgg wax biir lépp lu ciy dugg dañ ko war a segg segg segg ko. mais koo xam ne sëriñ bi wax ne amoo laboratoire nga tibb sunguf jox nit ki doo saa sunguf bi xamoo ko nit ki def ci kaas yëngal naan ci mu dugg ci biiram sa sunguf day fat ay rein man au lieu man mii di wax yow am naa ay laboratoire sama kër dama ko jàng maîtriser ko mais yeneen xeetu jàngoor laa ci faj kon na nit ñi dem jàngi xam-xam gëstu la mooy xam-xam xam lan mooy xam-xam bala ñu ciy wax ndax sulli xel mi alim yéen tamit nee na xam-xam boo gis am na xam-xam gën a féete kaw am na sunguf yoo xam ne fi ne ku ko naan da ngay faatu mhm. te pourtant sunguf yooyu boo ko sangoo doo dara mais boo ko sangoo day indi wërsëg de boo ko sangoo doo ñàkk xaalis sunguf boobu mais fi ne boo ko def ci kaas boo ko naan di faatu te pourtant day indi xaalis wërsëg man am naa am naa sunguf soo xam naa ko boo ko sangoon bool ko sunguf or sunguf xaalis mhm. dëkk ba nga nekk nga jël béy ba gën a rëy def ko ci sangoo ko jël billet ba jëndee ko banaan wala pom luy nooy jox koy xaalis sangoo ko doo tàggoo xaalis te pourtant suñu soosu boo ko xoojoon ci ndox naan ko da ngay faatu kon lépp luy lore am na fu muy jariñee lépp luy jariñ am na fu muy loree mhm. Mhm. kon nay gaay yi bàyyi sunguf yi ñu jox ñu koy nax nit ñi ñu koy ñaan loolu baaxut mhm. baax na ci kaw boo maîtriser sunguf xam laboratoire xam dosage bi xam lépp xam heure bi ndax nit ñi seen deret bi tolloo woon da gis ñaar nit ñoo xam ne seen bopp day metti ñu dem hôpital te portant bu ñu demee hôpital duñ bokk jox benn garab kii mën nañu ko jox Efferalgan kii ñu jox paracétamol kii ñu jox paracétamol kii ñu ne ko la duñ ko jox tar paracétamol dañuy wàccee tension bi nekkoon kon da bàyyi mu dañ hmm. kon kenn ku ci nekk am na lu ñu war a jox moo tax mbiru kàttan daal yor nañ ci secret boobu yoon nañ ci beneen secret boo xam ne moo koy guddal mooy bi ñu booleeg lay saxli fan noom bi gën a gudd mm-hmm. gudd saakara baat ba moo gën a gudd ci alxuraan mooy lay saxli mm-hmm. ci lañ koy liggéey ubbi bi wut ree ñu seen jañ quatre carré la mm-hmm. côté ba nag ñu bind ci lay saxli fan noom dëbb ko ba mokk ko li boo ko ca di di ko affaire bi day jug day day xëcc ci lay saxli fan noom moo tax lu lépp alhamdulilah daal dañuy sant yàlla ci ci ci ci xam-xam ndax namoon ko ndax suñu borom moo ne wallahu yaxtasu bi rahmatihi man yasa wala sulfali yi man yàlla maa ngi xool lu ma neex ma def ko ci jaam bi donte jàng nañ xam-xam mais jagle yàlla moo am am nañu jàng alxuraan xam lépp mais xamuñu secret yi bari na alxuraan ndax secret alxuraan boo xamee lépp loo bëgg a def ci àdduna bi da koy def ndax alxuraan dafa nekk 60 isib alxuraan juróom benn fukki isib la am 114 saar 114 saar alxuraan mooy téeméeri saar ak fukk ak ñeent am 6666 aaya mooy taxaw laaf seydina jibril alayhi salaatu wasalaam isib bu nekk am juróom-ñetti sumun bu nekk am ñaari robo saar bi gën a bari allahu ci alxuraan mooy xat samiha allahu xat samiha rek jigéen ju fay wala jëkk sa jabar fay wala sa jëkkër fay wala nga bëgg doom wala loo bëgg ci àdduna mm-hmm. saaru xat same bu mën na ko faj wala nga bëgg xëccoo dara saaru xat same boobu ba léegi ci wàllu mm-hmm. kattan gi mm-hmm. baat bi gën a gàtt ci alxuraan bu dee dañ laa takk xala baat bi gën a gàtt ci alxuraan nga baat bi gën a gàtt ci alxuraan mooy baatu nuun nuun nga ne wala xale mi baatu nuun boobu benn baat la kun takk xale fi ne moo koy dindi ndax am na ñoo xam dañu leen takk xala da ngay takk jox na wàcc ko dem takk beneen soxna sa na dem ci sëriñ takk la xala pour doo man ci moom dara moo waral nga dem ci kii man dara nga dem ci kii doo man dara ñu ne moom da kii dee man dara mais kee du man dara kon lépp lay duggaat ci wàllu kaaraange nga doon ba léegi mm-hmm. Mm-hmm. ki bala ngay def dara wutal sa bopp kaaraange ba pare ah, xam nga ne am na ci garab yoo xam ne ku ko sangoo ci boppam mm-hmm. képp ku lay jéemal balaa bis baa dellusi wala at maa dellusi di nga tim bàmmeelam billahi la si laa ilaha illa huwa te yëpp sax ci ci ci écran ndax am na ci yoo xam ne mbir biir néeg la waaw mais tey euh, ci li nga xamante ni moo di kàttan gi rek léeg yàlla day dogal am na góor ñoo xamante ne duñu dul mën di ñëw wax seen feebar waaye am ñoo xamante ni bu ñu ko ñëwee jël am njëriñ ci dañuy dem ba léegi seen i ay soxla ñooy ñëw di la ko wut si fii di leen ko yóbbu loolu euh, boo ko dee gis ni muy def man ñi jàpp ñi ñëw fii di ko jël si ay jigéen lañ di ko wut seen jëkkër yi dama ci sant yàlla te xam ne loolu tamit ñoom bëgg nañ lu baax bëgg nañu sëy donte am na góor ñoo xam dañ lay woon ne la ah sëñ bi ñoo xam nekkuñ bi ma ko mais taf bi buñ fi nekk nañ ko dindi kol ko noonu jox ko sama xam nga rek bëgguñ ñu xam lan la sutura ndax yàlla moo bëgg moo bëgg moo gën a bëgg ñëpp sutura ndax ku du suturaal nit yaa doo suturaal mm-hmm. képp koo gis mu yàq àdduna nit bala ngaa fàtte yàlla yàq sa àdduna ndax doomu aadama dafa for wala xadd karam naa bani aadama wa xamal naa fil barri wal bahri wala saqa naa min tey ba fadla xekkasi ma xal naa taf di laa doomu aadama du ay fo mhm. doomu aadama nit ak noppam du ay fo toll. macha allah ci kàddu yu am solo yi ba tey ci waxtaan bi waaye xam naa balaa ma duggaat ak euh, samay question bi nga xamante ne moom laa bëgg a tëjee sëriñ bi damay taxaw ak yow tuuti ci li nga xamante ne moo di actualité ñu waxtaan parce que bokk na ci lu sénégalais yi di waxtaanee Balla Gaye euh, ku ne xam làmb jooju fu mu toll sénégalais yi waaye yow yàlla may la ci si ñaari mbër yooyu nga am koo ci wëllëranteel euh, gis-gis bi nga xamante ne tey moom nga gis ci làmb ji ak yan kàddu ñu ciy wax sénégalais lan lay doon sëriñ. ah gis-gis ba ci am moo xam naa ne mooy dama ñaan suñu borom def jàmm ci réew mi ba pare waaye Tapha Tine di toll na ci messik foo xam ne képp kum daan ma nga faa jaar baay làmm waaw mais nag waaw ñu ñaan yàlla di ci mën am làmb ji nag jàmm am jàmm rek moo jara a ñaan wa salaamun alayhi yaa ma walida wa yaa ma yamut waaye ubbu xasaxayya salaamun hiya atamale fajri inna diin hindalay islam dina islam dina jàmm donte ñaañ ñëpp ay julli lañ kon doo fekk ñaañ ñi dóorante di kor fañ dajji naaj nga ngay tàcc boo tàccoo rek doo ab jullit jullit du fekk jullit mu ñuy dóor muy naaj mu tàcc kontaan ci doon tam fola yéen ko wax kon nag dañ leen ñaanal daal mu dal fola sport la <laughs> waaye ci ci ci làmb ji fi mu taxaw euh, bi dañuy déglu say kàddu te dañuy xaar seen i wax euh, lan nga leen di mën a jox lu xaw a dal seen xel ñenn ci fan si Balla yi ñenn ci fan si Tapha Tine yi ak fi làmb ji toll xam nga loolu mbiru biir néeg la te ñu ma ci seq seq na ko ak ñoom ci biir ci néeg ndax baatin wane baatin mi ngi mel ne ay jigéen toog nii benn jigéen jekk-jekk benn jigéen jekk-jekk gis regal génn ci moom yeneen jigéen ñi gis ko ni muy rusee noonu la wane baatin noonu la wane baatin ci ñu ko xamul noonu la mel ci suñu borom boo ko wane sama suñu borom mën naa rocc secret bi sax bi mu la jox mais li ma xam ba xam ko Tapha moom képp kum daan ci guddi yi mu nga faa jaar bàyyi la am tabaal la nag bàyyil boppam waaw moo tax lañ fa lañ dugg ak lañ def ak lañ xam ak lañ war a wax ci biir nekk def nañ ko pare dañu xaar yàlla bis bi mu ngi ni bis bi nañ ñu xool ni ubbi seen ba xool gis naa ko bu yàgg waaw bëkk démb laa jógee di waan Tanzanie mhm. maa ngi nuyu baax waa Tanzanie am na lu ñu def ci ci ci ci ci ci ci lu bari mais nag du tax ñu wax lu bari ndax am na ci loo xam ne des na ko messal mais am na loo xam ne laa mën du ko laal la yàlla jox ba ceeb ma xaama hmm. te mënu koo jëm natt lañ koy xaymaa hmm. te ba laa wala ba jox la mbir ya nga muñ na tamit aw muñ na hmm. nekkoon na ko daana nañ ko nekkoon na ko daan tafatin ñëw na xam nga tafatin comme exemple tafatin comme ab immeuble L+5 bala nekk ab terrasse Malick Thiandoum nekk lan nekk ne kaas carré Thiandoum sama xarit la uh-huh. waaw waaw moo tax ma ne la immeuble boobu terrasse bi man naa gën a dëgër immeuble bi la xam nga loolu uh-huh. ndax gis étage boo xam ne day jekk tabax ko mu dugg sax ay at yu bari mu jekk-jekk maa bu daanu terrasse boo xam ne am na 50 ans te daanu ba léegi mu ngi dégg kon lu tax mu taxaw lan la fondement ba dégg nga olof. waaw ah, baax na. Ah, yàlla baax na kon kàddu yi ci li nga xamante ne wax na ko yaakaar naa ne kàddu la yoo xamante ne saa su ne askan wi dañuy bëgg a dégg yu mel nii ci moom ndax bu ñu doxee wala lu yàgg-yàgg dinañ gis kàddu yi nga xamante ne waxoon na ko sëriñ bi ci tëj ak ci tàggatoo du ñàkk nag ñu laaj la ci ndaxit résultat yu am solo yi nga xamante ne yaa ngi ko ciy def te képp koo ci jëflanteel mu teg ba gis résultat muy wàllum nopp moom nag jafe na jafe goo xamante ni ñu koy woote woo bëri na waaye ñu ko mën bëriwul waaw noob dafa bari façon ça dépend ci nit ki bu fekkante ne nit ki koo xam ne dafa dëgër hmm. ba dëgër lool ñu nopp fu ne mu def lu ne jàpput da ngay adda turam ak adda turu yaayam adda turu jëkkër ji adda yaayam hmm. li nga ci werdu doo jox ni bu sanga doo wax dara werdu juróom-ñaari fan kooku day topp kam xaj na ci ay baatu yoo xam ne danga koy am ñu koy bindee hmm. nga ndaw lu béy boo xam ne amul yàpp nga ubbi ko def ci ndawal gi tëj ko bu dee xaj ku jigéen ngay nopp booy woo xaj bi ku turu jigéen ngay wax def nii xam nga jégu seen ndawal day ñëw nga wax ko ba mu nga teg mu lekk ko sa fini bu góor noonu wala boog xam nga léeg-léeg nga gis garab gox ci yoon nga xas ko nii am dëbb ko ba mu nekk sunguf am na lu ñu koy booleel nga jox ko jigéen boo ko lekkee sa fini wala bu góor boo ko lekkee sa fini xam loolu mu sangu Eh, joni joni la wala ba nga wut buum foqet poqet mm-hmm. ak caasi golo ah. ngay fas kun saala Muhammad wala la Muhammad siri sigi sara sigi alfa laa xab naam neen ñu ma jab naa baaba maaha laa xab naam neen ñu ma jab naa baaba maaha bif min jab gëm nunu tëf diw nangam nangam tëf tëj te boo koy fas doo ko fas kanam ginnaaw ngay fas nii ginnaaw mel ngay gëmm booy fas te booy fas tamit doo nooyi nga mm-hmm. téye sa nooyi nga téye ko na annabatu hemar may teg mbaam miim nga ubbi ko def lañ cay def boole ko boo ko la koy selebi yoon ñoom ñoo ba nit luñu bàyyante dee rek moo leen dàqal baaxul moo tax kenn di ko def koo takkul wala koo bëggut ku bëgg koo takk soxna te yàlla tax am ñoo xam dañu koy def ngir fooyee jigéen te loolu baaxut dal na ma ay cas yu bari ñoo xam ne dañu ko defal nekk takkuñu ko sax mujj naa ma si dindi ko mën na dee mënu ma ko dindi am na ñoo xam boo ko see def ko dindi loolu daal macha allah muy kaddu yu am solo ci dalal bi nga xamante ne dalaloon nañ ko Serigne Bara Niane euh, à travers 4 waaye ci fàttali rek yéen ñi bëgg di jokkoo ak moom numéro téléphone yaa ngi noonu ci suufu écran bi cheikh bi yaakaar naa ne kaddu yi am na solo donte ne xat nga waaye may nga ñu euh, disponibilité ngir waxtaan askan bi nga xamante ne saa su ne dañuy xaar kaddu yi ci yow ñuy bëgg bu baax a baax a baax di la bàyyi rek nga joxe dernière kaddu yi ñu daal di tëj. waaw di sant suñu borom subhanahu wa ko séddoo wala al ndax islaam ñetti mbir képp la iman islaam ihsan iman na nga gëm ne yow ab jullit nga islaam nga gëm ne diine islaam yi nga nekk mooy diine yi gën a wér ihsan nga gëm ne li nga nekk diine rafet la rafet la moo la alxuraan wax inna diin hindala islaam ñu bëggante te soppante te bañ a yénante dara lu safaan ñu ba yénante jàmm ndax yàlla yéen jullit ñi bëggante leen te soppante leen waxtasimu bi waskuru ni'matan alaykum is kuntum a'daan fa allafa bayna xulubikum fa asbahtu bi rahmati ixwanan da ngeen bëggante soppante ba pare mu ñëwaat ne ki gën ci yéen ki gën a ragal yàlla mooy gën ragal yàlla mooy inna akramakum wala loo xam ne lu gën la ci moom la aw lies mu nga danga tëj sa gémmiñ man kaana yuminu billahi wal yawmil aaxiri fal yaqul xayran kon diine la diine jàmm la diine maandu la kenn ku ne nga bàyyi ko ci la nekk nekk ci la nga nekk lakkum diine ko wala diine wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu